ñaari wàcc comme comme ban wàcc yi wàcc ñetti wàcc wàcc bi si naa di ñëw bi indi ñu naan ñu mën a kii waaye ak wàcc bu mu wàcc ci leen xabar bu mu leen xabar bu mu seetee ci wax yu bari yi dañ naan leen bu xabar ci jamono jooju dafa nekkoon ci ci Ramadan xam nga mooy bàqoon ñu ne leen bu xabar ñu ci weeru ko daa ngi ci ci xalil bi ne ci wooy waaye wóor na ci ak ñu la nekk waaye day day day jox day jox ak yi bari na ñu ñoo xam ne mais lakk ko ñu yegg loolu di nga am na ñoo xam ne ñaar fukki fan ak juróom rek lañ ko tax ñi ñaar ko juróom ñaar rek lañ ko tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fàttu leen ko ci fan yi ñu ne loolu lépp tegtaliwul ne ci ramadan rek ma nekk ndax xëy na comme ñoo ko yonent day wax dafa nekk ci ramadan waaye li wóor ne ñëpp d'accord nañ ne day taxaw ñi nga xam ne ñoo fixé ñaar ko juróom ak ñaar ko juróom ñaar am ñeneen ñu fixé ko ci ajuma bi ci weeru koor moom daal lu dul noonu dafay tox kon am nañu am nañu du tox benn daal ñii ne day tox ñii ne du tox ñii ne bu toxu bu toxaw bu toxu yëpp du génn ramadan ñii ne dana génn ramadan waaye ci at mi rek la nekk ñii ne am ji lu xam ne mënu la amul tam taxaw ba allahu akbar nit mu àggale ko mu tàmbalee taxaw àggale ko ci sujjóot bi ndax fekk leen ci rukkoo bi ngir ràkka boobu bañ ko raw ndax ko kon moom taxawaay boobu nga xam ne daf koy wax booy allahu akbar bi ci la jub iman bi ci rukkoo iman bi fa farata la ba faw rek wala moom kay li ëpp ci kàbbar bi dana ko wax taxaw wala lépp lay taxaw ñu taawi leen si wa inna yusim naka dana doy innama lil xasri innama yusim maanaam la yusim illa allahu akbar allahu akbar rek mooy doy suñu wax allahu ajallu wala allahu ala wala allahu azamu wala allahu kabir wala dol am na ci ngir yi ñeen nag ñoo xam ne yéen ñu ko waaye suñu ngéew imam malik daal allahu akbar rek mooy doy ndax akbar ak aatamu bi yëpp bu ci nekk maanaa mi am na lu ñu wutante te mbirum julli lépp tawqif yu ñu la ñun wax ne alquran tawqif yu maanaam nañ ko fekkee rek ñu ci jéem a mais suñu xel dinañ ko topp rek nañ ko fekk xëy na aji sa dem lott na ci allahu akbar bi saqata mu rot fekkee ne benn dafa lu luuma la wala mu ajabi ba nga xam ne mënu wax allahu akbar foofu it wax yu bari ngi fi fekkee ne dafa mën a wax allahu ji te akbar ji mënu ko wax wala ah ji mën na ko wax te li ci des mënu ko wax wala mel noonu wala muy bégee boo xam ne bu ko mën a kii yooyu yëpp wala maa indi nañ ci wax yu bari yoo xam ne ni bu fekkee ne li mu mën bu ko waxee bu tee maanaam yi dikk dana wax la mu mën li ci des mën ko mu bàyyi ko kon farata ji ci moom mooy la mu mën a wax rek ci ñaari baat yi aleykum salaam allahu akbar ji wa niyatu salaati yéene julli ñaareelu farata yi al mu ay ñu bëri bu ñu ràññee da ngay fas yéene julli mel na tey bu fekkee da nga bëgg a wax ne tey julli dimanche takkusaan gii nga julli la lépp dana gudd ndax di ci bi nga waxee allahu ji ak akbar ji rek nga war a la yéene ñu war a tàmbee kon na nga daal di fas yéene julli gii ñu teew rek kon loolu lépp dugg na ci ñu daal di xam ne dimanche la takkusaan la ñeent rakkaa ndax ñeent rakkaay itam lii na alors lii salaat ak lii ne julli ak ay yéen ci gën ko ñu ràññeel yéene julli ñu ñu ràññeel farata la wala su ko baatam nag moom waasiun aji yaatu la maanaam yéene mu la neex mën nga koo yéene waaye diggat mooy ni ma waxee ndax bu la ko allahu akbar ji ba noppi bañ a yéex daañu wax ci bërëb yi nga xam ne ci la ñuy seet ndax ilimaan jégg na fiq wala jéggul fiq fekkee dafa ne allahu akbar ñu ne jéggul fiq ndax ba mu ne al rek ñu borom war lan ñu gaaw mën na ne allahu akbar ji di ko defoon jilleem yàqu du am jilli naka noonu asalaamaaleykum fekkee dafa ne asalaamaaleykum jéggul fiq ndax bu ne asalaam rek ba lay wax aleykum kum borom lan ñu gaaw mën na ko jiitu ci kum ji miim kum julleem yàqu fekkee ni itam am na ñaar ba taayaa war a jóg taxaw mu daal di ne allah ba jógaale kabar bi ni bu fukk dafa war a jóg ba taxaw ba ne tem nit ñi maa moom yëpp toog ba mu ne allah akbar ñu soog a jóg nga xam ne wala buuboon baatam moom yéene waasi woon aji yaatu la mu wa in taxaalafaat fekkee ne wuute nañu ñoom ñaar masalan yéene ak yéene yéene bi mu waxoon mu wuuteeg diwi gi da ngay yéene waxtu bii waaye nga jàpp ne tisbaar la nga baatal tisbaar xam nga ñoom ñaar kon wuute nañu mu ni bu ñu wutee fal aqdu pas-pas bi bii nga fas li nga fas saxal rek moo jub moo gën moo wóor li ci salam yi ñu ko andul li ci saxal li ci salam yi dañuy jàpp kon fekkee ne da ngay julli julli julli bii te mooy julli takusaan nga wax ne salaatu xoy ci ñi nga xam ne dañuy baax lépp nga xam ne ñoo xam ne dañ naan wal salaatu waqtil asri yowma yowmal ahadi bi xam yooyu la fekkee ne wax nga ko te fekk salam yi am wuuteeg sa xol waaye li nga xol li nga fas sa xol mooy waxtu yi loolu mooy wéy kon dana baax moo tax mu ne in taxaalafa ne mu wët nañu ñu ngi yéene ak ak baatal gi fa aqdu pas-pas bi moo compté war rafdu fëgg nag mu kilun aji yàqu la mu war rafdu xam nga waxoon na ne lii wuutoo rafdu ak koor ak yooyu yëpp bu fekkee rafdu maanaam dindi yéene ji wàcc yéene wan ba ci biir ne yéene ma dara yéene bu fekkee ne julli la nee na mu kilun la dégg nga maanaam bu fekkee ne da ngay génn si julli bi salaamu taxliil salaamu yëweeku bi maanaam sërmal bu yëweeku bi assalaamu aleykum dégg nga dàqaale ci yéene ji génn bi nga war a génn si julli bi nga yéene ji nga war a génn si julli bi nga dàqaale dindiwaale yéene gi wàcc ko nga jublu ko daal maanaam ñàkk a yéene bi nga jublu ko tey ko daal nga xam ne da ngay yéenetul dara loolu mu ne mu julli aji yàq la mu mu ne nag noonu ka salaam yi naka sëlmal aw vannihi wala joxoom tak fa atama tam mottali bi naf bi ci nax yi waaye nag ci saako in taala ndem yàgg na aw rakaa wala mu ko bu fekkente ne dafa ne asalaamaaleykum mu sëlmal fekk ñaar rakaa rek la am te ñeent rakaa la wala mu julli wala ñett wala mu jàpp ne matal na génn si julli bi te sëlmalul mun naa tàmbalee def leneen wala mu jóg kàbbar naa fi la wala mu daal def leneen mel na rek dégg nga àggale na dafa sëlmal jàpp na ne moom sëlmal na te fekk kat ñaar rakka la am jàpp na ne sëlmal na ba mu dugg si jeneen jëf wala mu def leneen loo xam ne wuti naag dund gi ndax jàpp na ne sëlmal te sax sëlmalul waaye defe na ne sëlmal la loolu it lay yàq dund gi mooy mu wala mu jo mu sëlmal wala mu jot ne sëlmal na fa àttam ma tamu mat li bi naf lin maanaam mu daal di jóg nag parce que yéen a julli ñaar rakkaay naafila mu julli nit ba noppi baaxoo ne julli ñaar rakkaa gannaaw timis mu daal di ñaar rakkaa rek la julli ci timis bi war a motal benn rakkaa mu taayal benn musulman di jóg kabara ngir ñaar rakkaay ji def wala mu jàpp ne sëlmal na mu jóg kabar itam ñaar rakkaay naafila yi ci def dégg nga nga ne ko xanaa loolu bu fekkee ne ba mu sëlmalee ak ba mu kabaree dafa yàgg la mu ne waaw intaala ndem yàgg na wala mu kabar aw rakkaa wala mu rukkoo ci naafila gi bi nga xam ne ci la duggaat gannaaw bi waaye wa illaa su fekkee ne ñaar yëpp maanaam yëppul jàngul jàng yu yàgg su jàng rek ci naafila bi saaru gàtt dal di fàttali ko fekk rukkoo bu wala mu ko léegi nag bu ñaar yooyu yëpp d'accord voilà julli ga du yàqu mu ngi leen ci ba tey ci yàqu bi nga xam ne moom la julli bi du yàqu mu ne ka am na mu yàqu na ko ne ko jot ñu woon sax ne sëlmal na jotul woon ne sëlmal na dafa fàttali ne rek dafa jàpp ne rek moom mu ngi ci naat la wala ci geneen julli farata la nekk ñu xam ngeen ñu dégg ngeen borom aw azamat wala fàddu tey yéene dégg nga yéeneetul dara mu mel ne nekkul ci jaamu yàlla mu mel ne muy jëf jëfi aada kon yéeneem nekkatul ci xolam yéeneem fàddu la xam nga julli soo dee julli yaa ngi teewlu ne yaa ngi ci kanam suñu borom suñu borom mun na wax kanam ak gannaaw maanaam rek nanoo mën a waxee noonu ngir ñun ñu xam yaa ngi ci suñu borom wormaal bi nga ko war a wormaal ak màggal ak yëg gi ngay yëg ne yaa ngi ci moom ci jaamu nga xam ne teggin yi nga war a wéyee ci sa cër yëpp ak sa xol ak sa xel lépp nga dem ba loolu lépp nag di mel ne yaa ngi jëf jëfi aada nga azimat fàtte wala ngeen ni wala yéen a mu sax arakaati rakkaay am faniwul dara yéen a ñeenti rakka julli rek mu yéene rek julli takkusaan mu ko mën takkusaan gii dafa am ñu ràññee ñoo xam ne kon da ngay julli takkusaan nga ko wax rek da ngay julli takkusaan gii gii teew bu defee mu yóbbaale bis bi ak waxtu takkusaan wi mu doon awil adaa wala jox xam nga da ngay yéene bu fekkee ne da ngay yéene waxtu julli ci waxtoom da nga yéene jox bu fekkee da nga yéene bu ngeen da ngay fay itam da nga yéene fay loolu yëpp ci yéene ji rek nga xam ne ñi nga xamee ne istixlaaf xawf xawf bu ñu wa jamin jum asin mustaxlifi yëpp dañ koy yéene di gannaaw bu nga yéene julli ji mu ñuy ràññal ba noppi ñi ngay yéene nekk ilimaan ci ñett yooyu julli salaatul xawf bi gannaaw bi nga yéene julli ji matal bu dee matal bu dee wàññi nga yéene ko ci julli bi ragal julli yéene ko itam ci julli boole tisbaar ak takkusaan wala tibisaan ngir sabab wala nga yéene ngay julli jumaa yéene gi yéene nekk iman dégg nga yéene yooyu bu fekkente ne yaa ngi koy def rakka yi ci la mbokk waaye mun la boo yéenewul rakka yi itam waaye yéene nga julli kii aleykum salaam julli gi ñeenti rakka la ndax takkusaan julli gi ngay waaye julli takkusaan la kon xam nga ne ñeenti rakka la loolu dana yóbbaale yéen waaye nag buñ fekkoon ne dangaa yéenewaale rakka yi xëy bu baax ñu la waaye ba tey fekkee ne yéenewul jox wala yéenewul wala awul dafa wala safaanu bi wax mooy fay ba tey julli bi du yàqu waaye wàcc nga ay ngëneel aw bi def aw wa niyatu tidaal imaamu wi wa ba tey alayhi salaam wa maanaam ñeenteelu yéene yi maanaam farata yi julli yi iqtidaau maamumi royu maamum bu fekkente ne yaa ngi julli topp ci ilimaan farata la nga yéene roy maanaam fas yéene julli ji roy ci ci ilimaan sañ day itam fas yéene armale li sa ilimaan armale rek ilimaan ji day la mu ngi jiite bu fas yéene armale fas na yéene armale su na ilimaan armale xam ne kon gannaaw ne nga sama ilimaan nag li mu armale yéene waale nga roy bi nekk maam yéene waale nga rakka yi yéene waale nga julli bu ñu ràññal mat mu ne wani yàqu wani tox ci daal imaam mi ak yéeni roy imaan di farata la wa jaasa dagan na lahu ñeel ko moom imaan mooy ma wax du xoolul mu tàbbi alama ci kaw la nga xam ne ahrama armale ne buñ ci loole ak imaam limaan dagan ne itam nga yéen rek nga yéenee kabare li ci armale li ci limaan armale ba tey waaye batalat yàqoot na moom julli bi sabtihaa ci jiitoom moom yéene in kasra ndem bari na sabtiha maanaam yéene ji ulama yëpp d'accord nañ ci daje nañ ci ne bu fekkente ne ilima da nga yéene ba noppi soog a jóg daal di daal di kàmbat si julli yàqu na yéene sàttam mooy mu lépp ko kàmbaru arna bi fi nga jógee ba taxaw ba jublu per ba xam ne allahu akbar a des fi nga tàmbalee allah kooku la yéene ji dugg yéene moom sa xol la mën nga ko bañ a waxaale wala fekkee da nga koy def talafasu bi da nga koy wax nag jege lool jege koo xam ne dafa sësoo ak kàmbar gi kàmbaru ar nag wa illa su fekkee ne yàggul da ngay yéene da nga taxaw ba noppi yéene ba noppi daal di soxla wëlbati ba ba gën a jekk ci penku bi daal di kàmbar ndax yéen julli gi yàqu na wala yàqul parce que am nañ ci wute boo bokk na ci fàtte yi ba bokk na ci farat yi ba ci fatiha yaa ngi fatiha bi xarakati lisaani ànd ak yëngu lamiñ bu fekkee ne julli du gëral li ci julli gi yellu la julli gi yellu bu moom xam nga ne charte biral mooy kii daan ak yow na ko dégg yéen nga dégg li ngay wax ta saa yu ngay tari bu fekkee ne yaa ngi biral bu dee yàllu nag daanaka même sa bopp yow sa bopp boo ko dégg kii dégg koy waaye nag xam ne yaa ngi koy wax daal salam ñu ngi ci yéen kii di ko wax ñu xarakat lisaan yi ànd ak yëngu lamiñ mu far fatiha mu fatiha moom mu war ala imaam ci imaam ci jiite moom mooy tari fatiha war na ci moom waajib na ci moom boo fëggin ak ajiwe koo xam ne itam moom kese yi julli nga xam ne kon maamum lañ ci biir maamum kon du faral ci ci moom dégg nga ñun ñi dana wii dagan dana baax moom jàngu fatiha yi nga xam ne farata la ci yalu wa illa mu ismi doon te déggal ñu woon naf saxu boppam itam nga xam ne li mu jàng moom si boppam mais li ma misaal léegi rek moom am na jëg ko sax waaye xam na ne ngay tari fatiha ci la ñu waaye li ñuy dàq mooy saxel rek di ko tari parce que la ñuy buur waaye bu fekkee ne yaa ngi wax lu mu suufe suufe nga déglu ko jàng nga fatiha baax na wa qiyaamu moo ko na ci farata yi ba tey qiyaamu taxaw laxaa di jàng fatiha doo sañu loo kàbbar ba noppi daal di toog wala nga ruko di jàng fatiha ndax taxawaay bi ngay taxaw jàng fatiha dina ko jàng on nekk ci téere farata la fa yajibu on dana war taallumuhuma xam lu fatiha ak allahu akbar war na ci kon bépp jullit bu war a julli farat la ci yow nga jàng fatiha ah sunna la ci yow nga jàng saar bi nga ciy teg fii yaa ngi koy jàng te mokkal boo ko war nga di seet iman di roy ci ndax julli du yàqu xëy na misaal bu ngeen am kana nem jàpp ni na waaye bu fekkee ne muuma la wala yooyu nga xam ne mu fi bu mën a jàng du war ci moom wa illa su fekkee ne mënu koo jàng nag mënu koo jàng nag nga xam ne moom gisul kan koo ko jàngal wala moom dafa muuma lu muy wax wala loo xam ne daal dana tax moom julli tege na bu fay jàng feeg ba waxtu wi wéy kon tam na mooy ma wax mu roy maanaam na na seet mu mën a jàng fatiha mu roy ci moom topp ci moom maanaam mu nekk noonu xëy na mu naa fekkee ne jàpp nañu ñoom ñaar moom roy gi ak ji xam lu fatiha gi wal muxtaar ñu ne tànn ñu def kan nga xam ne soxlatuhuma ak rosse ñoom ñaar moom kan ak kan moom jàng ak roy waaw loolu ñu ba soppi fat na fas lu fasale bàyyi na takk biiri hii diggante kabaro armalam ba waru ko hii moom mi nga xam ne mu ngi jàng fatiha nga xam ne dafa war a jàng bu kël dara lu mu jàng du sopp nañ mu bañ a nekk allahu akbar kabar dal di ko ndax mu naan gannaaw man jànguma dara bu ma fi taari dara bu ma kabaree rek soxlu ma di taxaw damay daal di ko sopp ñu ko dañu sopp bu ne allahu akbar ba noppi mu taxaw diir soogaru ko moom mi nga xam ne mënu fatiha mënu beneen saa dégg nga bal nga kat bii diggante kabaram waru ko ak rukoom mu ni waxal yàlla ndax taji bu dana waat alfatiha tu fatiha fi ko rakkaatin ci bépp rakka awi julli wala moom kay ci li gën a bari ci ci rakkaa yi naki bu dee julli ñeenti rakka ci ñetti rakka ñi rek la fatiha war ñi ci def sunna la ci wala bu dee ñetti rakka mis ñaari rakka njëkk ñi rek la fatiha war wala moom kay ci mboolem rakka yi ah ci mboolem rakka yi la war mu ni xilaaf wañu taraka nem bàyyi na aaya tam aaya mun haa ci fatiha sajada tam sujjóot lu muy sujjóot qabla salaam lu tax wàññee binaan ala min fatihata fa ri batul su fekkente ne ci léegi jàng na fatiha ñaar rakka yu jub ñëpp fatiha ak saar la ci ba si ñetteel rakka bi mu jàng fatiha beneen rakka bi ci def muy jàng fatiha fàtte ci benn aaya def ko luy atteem itam dana séer wala du si biir wala dana xam ci biir ndax fàtte ko ci daakam lu ci biir fàtte ci julli ñeent rakka mu fàtte fatiha ci rakka bu mu julli mu kooku mu fàtte fatiha yëpp de mu fàtte ci saar aaya rek loolu mooy atteem loolu baamu ci ndax baamu après di benn aaya rek waaw ci rakka bu mu julli dara waru ci ci ci ci Fatiha la ko fàtte. waaw. dafa war a war a sujjóot tam xam. war a sujjóot war a sujjóot. xam la baax na. xam la. lu tax baax na. xam la waaw. bu fekkee ne dañu wax ne xam nga ñaari wax a fi am bu fekkee ne dañ ne Fatiha farat na ci bépp rakka boobu dina sujjóot xam la bu fekkee ne dañoo ànd ci beneen wax bi fii gën a ci li ëpp ci julli gi la fatiha nekk farat kon bu taree fatiha ñetti rakka yi njëkk yi beneen rakka mujj bi bu ci fàtte saar bisu jooju dawaru ci fekkee nag jàpp nañ ci wax ci gën a lëgg mooy fatiha farat la ci rakka bu nekk am si nekk qabla salaam ndax wàññi na ci fatiha ñu ñu ñu fort ci foofu nga xam ne ñoom jàpp nañ ko naa lu mu ko def dañ ko def ci dañ ne dañ ne sunna la wala ngëneel waaw ci ñaar rakk yu mujj yi.
déedéet benn gën a néew benn rakka waaw ci timis ak tee ak tisbaar ak takkusaan bu dee suba nag
yëpp ko def ko yëpp farat la waaw am na am dégg nga loolu sax bañu julli salaatu way taraka nem bàyyi na aya tan aya min haa ci fatiha sajada ko sujjóot waru koo on waru koo bokk na ci farata yi sajada boobu wax na lan la ñuy yor
ah bu fekkee ne bàyyi na wàññi na rek kon dafay sujjóot kon la waaw mu ni waru koo on ba tey farata la ru koo taqar bu boo xam ne dana jege ni aaxataahu ñaari tënkam fii ci waxtu ru koo ci ru koo min rukk ba tey ci ñaari bés boobu bu fekkee ne yaa ngi ru ko nii dagan na nga téye nii dagan na nii li ñu gën a sopp nañu sallallahu alayhi wa sallam mu daan def bu jàppee ci biir day raa ci baaraam bi ci biir su biir nag tëbbale ko léegi bu fekkee ne def def nii nii lay def nii kon day def ci kaw ñaari bëtumam yi wala mu jege ko ci kaw féete féete ko kaw dégg nga waru juba soppe fat na tamkiinuhuma jàpp ndilal si leen ñoom ñaar mooy yàggal leen saxal leen minhuma ci ñoom ñaar moo di ñaari tënk ñaari loxoom yooyu kooku ci wax ju gën a wér al butuwaan asal yu faru min ah kii nag li ngi dem ci suñu xaat kat wala ma ab kooku déedéet ma nga ci kaw ah waaw waaw mi ngi nii ay arruko ñu ruk ba tey benn xanaa insana an takku fii ataw ñu léegi fale sa ruko an fekkee ne da nga ruko ruko boo xam ne da nga fii nga téye rek maanaam sa guloo bu baax moo tax kooku du doon ruko sa guloo bu baax ndax dañoo bëgg sa gannaaw yemoo fii gën a bañ a gën a féete kaw fii bañ a bañ a gën a féete kaw lépp maaseloo daal ci ruko moo tax mu ne boo di ba soppe fat na tam kii ma saxal leen nit nag ñoom ñoom ñaar min huma maxal léegi tey da nga koy téye mu sax ci sa ñaari tënk yooyu sax ci ñaari biti woom yi maanaam ni nga koy téye ñun boo des ba huma ba tey sopp nañu samp ko maanaam ñaari kii yi ñaari biti woom yi bilaa ibrahim nga ne nii bañ na nii nas bu maanaam samp bi tànk bi samp moom lañ sopp waaw mu ne kon wa warat un farata lay yëkkatiku min fu jur koo mu suñ gën xam ne dooru ko rek dañu mu rot si jot ne rek di jógaat taxaw kooku farata la wa sujuudun ak sujuud ba tey farat la ala jëkkatihi ci jërëm ci farata yi la ko ndax bakkan du farata lu mu doon seetal lu mu ci waxaat lu mu ci fekk mu ngi ci kanam waa da baamoot na li tëdd am fii nga xam ne lan la sunna jëgër sunna bu jëgër xam ne kon lu ñu ne digal nañ ma su jot ci juróom-ñaari yax ñu faw yi moom dana tëb fii ak fii lii cati baaraam dégg nga mu ne wa aada baamoot na sujuud ala jëfandikoo waa aada baamoot na ñu ko su fekkee ne dafa bari sujuud sujuudaale ba kanam lu tëj biiram rek di wax sunna ci waxtu te sunna sunna sunna lay fat na ah sujuud ala atraaf qadamay yi ci cati baaraam tànkam waru ba tey ak ñaari bi ci boobu kër yi naka noonu ñaari la moom alal ak jox ni kër yi mu ngi misaale woon léegi war a kon ba ba tey farata la rab ko yëkkati ko mënu ko ko ci sujjóot jumuusu ak jataay bi ngay jekki misalaani bi ci sëlmal ba nga gis sëlmal wa salaamun ak xilmal warreefa boo xam ne taarifa lees na ko bi al ak al assalaamu aleykum ba ñëpp boo nee salaamun aleykum du doy boo nee assalaamun aleykum du doy xaw nga ne assalaamu aleykum lan waxoon ca takbir ihram allahu akbar rek ba tey am na ay wax ba ulama yi bari nañu wuute ba tey ci yooyu waaye li gën a wér ulama yi ci gën a xuus ci biir mbir mi xam nañ ne ñu waxoon ci alquran asalaatu kulluha tawqifiyya gannaaw tawqifiyya la ñu ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek luñ ci xam lu ko waral ak luñ ci xamul lépp noonu rek lañ koy war a defee mooy mu ni nag mooy wa fi istiraati niyatil xuruj mi ci charte yéenee génn ci julli bi ci asalaamaaleykum jooju ndax charte la nga yéene waale génn ci julli xam nga boo nee asalaamaaleykum taxliil la ngoog maanaam yooyu ko génn nga si julli bi ndax loolu charte la nga boole ci yéene ko yéene julli si julli bi boo nee asalaamaaleykum nga yéene cee génn wala déet mu ne xilaaf am ci wute ak dégg ngeen ko de waaye saa doyat na fi taslimatu rabbi ci sëlmulu nuyoo bi delloo bi salaamun aleykum wala asalaamu aleykum noppi sa imaam salaamun aleykum salaamun aleykum wut na taslimatu taxlil bi boobu moom asalaamu aleykum la ñu yoonal yi ngay delloowaat nag ci sa imaam ak sa càmmoñ bu kenn nekkee ko am na ñoo xam ne ñooñu fi kenn newul soxla wu am na ñoo xam ne fi kenn newul it war nga koo def ba tey sunnaal nañ ko waaye boobu salaamun aleykum doy na salaamun aleykum doy na. alhamdulilah bi yokk nañ ko fi nag waaye gaa yi de asalaamu aleykum rek moom la. dañuy gis nag léeg-léeg salaamu salaam daan ko def waaye yoonu ko woon faram yoo xam ne dañ ko war a def. xam na rek ñett ñi kii dafa ne asalaamaaleykum yéen dañu doon ne asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu si ñu ko toxtalee nanuñu arawantee li ñu wax ñu ëpp di tuyaaba mooy ni ki ki ne woon si gannaaw yonent bi salaa sallam mu julli bin ne sunu àllama li man xam ne ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا ملء الارض والسماوات يونت بي صلى الله عليه وسلم داك جيس بنت اسمان ابيكو مسلم لي مو لاج كان لا كو واخ كو يوك لول بات يوي ني كو جيو مو وون كو بنت اسمان ابيكو نا كما قال ci barke bi li mu wax loolu yëpp kon am na yoo xam ne sallallahu alayhi wa sallam njëkk woon a yoonal waaye nit daf koy def li ñuy wax taqrir mu saxal ko te wala mu encouragé ko te yooyu ba tey duñ ko tuddee sunu waaye ay ngëneel la bari na ci mel ne tasalaat xaru min nuum yooyu rek ak yeneen yu bari waaw ñu aleyka salaam wa aleyka salaam wa asalamu alayhi wa ajza inna lafda la kawdu wa salaam taxlim mu gën de salaam waaye dina dagan salaamun aleykum dagan na aleyka salaam asalaamaaleykum di nga yeewi koo am na ñoo xam ne bu fekkee da ngaa jiital aleykum ji du doy sa julli dana yàqu wala nga ne asalaamaaleykum nga ne aleykum salaam wala wa aleykum salaam watumaa nii ba tey bokk na ci farata yi ak dal ak daal ak tumaani na muy ci boo siggee ci rukkoo ak boo jógee ci sujjóot ak boo sujjóotee ak boo ko te ati daal bu fekkee ne jóg nga nga ne tem ba ne ba ne sàtt ni nga war a taxawee loolu mooy ati daal loo ko toogaat tuuti biir nag mooy tumaani na lu ca yokkuwaat gën waaye doo kii rek sa cër dalagul nga daal di delluwaat muy ci sujjóot muy cër koo bon wacc nga farata ñoo xam ne mooy ixtidaal ak tumaani ne ñaar yi yëpp xam nga dëgg naa laaj loolu ñu jàll ci affaire yéen maanaam ñu julli ba nekk ci biir julli nga am ni yéene woo ci départ bi comme ni nga ko waxee maanaam daal dugaloo yéene waaw ko baare wala ko yéene woo daal léegi léegi du am julli ndax yéene ji ah ndax yéene farata la fekkee ne yéene woo benn ngay jàng ngay julli yow dong ci gannaaw eh eh yow kañ nga ni ah yow yéene aji waaw waaw kooku la la dëkk ah ma ne
lo lo lo ah lo waaw waaw fii xam naa ko collège dégg nga léegi bu fekkente ne yéene woo def nga takk wér fi xaraam taxaw nga taxawaay takk wér fi xaraam ñetti yéene ñetti farat yooyu noonu yéene daal bu fekkee ne da ngaa bàyyi ñetti yëpp mën a rakka mu baax bu fekkente ne nag da ngaa topp ci ilimaan dana la jéng bu fekkee ne jógaat nga da ngay tàmbali ak yéene roy ko bu gàtt nga fay ndax yéene moom jël naa ne farata la waaye ñetti farata moo fi daje yéene ji ak taxawaay bi ngay taxaw boole ko teg bër ci xaram bi mu lëg ko ñetti farata yooyu xam nga ne farata bu fekkente ne euh, wàcc nga ko te rakkaa ba fasuwul mën nga koo dabaatal waaye bu rakkaa ba fasoo rakkaa fu muy fasoo jël ko ngoog bu rakkaa ba fasoo boobu rakk rakkaa ba fasoo boobu rakkaa yàqu na da ngay indi beneen rakkaa ci fay maanaam bu remplacé boobu fay nag ak jokk lu ñu wuute waxoon nañ ko jàngoon nañ ko lu ñu wuute fay ak jokk
xëy na nekk ñu weesu woon na ko Waaw.
def naa rabam bu tàmbali waaw ñëw léegi di wax woon yokk na day loo xam ne day maanaam njóobu day fekk maanaam léegi day iliman yi ci misaal ñëw nga am na mu julli bi ak am lu la tax waaw
di nga julli ah bu dee jokk nag nga xam ne ci rakka yu mujj yi di xarit foofu la ñu wutee la ñu wutee fekkente na tey dañoo dañoo dafa jokkale ko ci suñu julli ak fay ak jokk ni kii dañoo dikk fekk ilimaan ah nekk ci ñaareelu rakkaam rakkaam bu njëkk bi faat na lu dem ba am ngantal bori nga xam ne mën na noo jokk suñu julli yàqul ñu yow war a continuer ci ilimaan mi nga fekk ab rakka faat na rakka ñetteel bi faat na ci moom mu ànd ak moom bu ñeenteel bi ba mu toog taayal mu taayal am na ñaari rakkaay waaye am na rakka bu faatloon xam dañ ko war a fay bu fàtte ak saar rakka bi nga xam ne mooy ñetteel bu fàtte rek ci war a jàll kooku moom binaa la ñu ne du ko dañ koy jokk ko qaddamal binaa wa axaral qada rakka bi la ñuy njëkk a indi kii la ñuy rakka bu bi ñuy jokk la ñuy njëkk a indi ba noppi nag soog a fay soog a sëlmal
yor yi ibnu xaadim pour mu ibnu xaadim waaw waaw bu dee xam bi naa tamit xadaala bi saxlu qada la waaye ibnu ibnu ibnu qasim li mu am mooy mashhur mooy mashhur kooku amul ci sànq muy salaatu ñun salaatu xaw ñu jéem salaatu xaw ngay ngay xaar ñu koy leen.
waaw waaw misaalum na waaw bañ waaw waaw maanaam li ma bëgg a wax bu fekkente ni lu lu façon ndax bu nga defee fekk nga dugg ihram waaw lu moom façon waaw waaye yéene bi dugg léegi ndax da ngay daal di génnaat ci julli bi taxawaat kàbbal yéene te li nga jotoon def moom day yàqu kañ waaw xam nga ni waaw xam nga ni daf ci am yoo xam ne sa julli dana yàqu te ilimaan dana la jéem faw nga ànd ak moom ba mu ba mu ba mu sëlmal am na yoo xam ne bu yàqoo ci ci ci ci maamum du teel dana day continuer bii ci julli gi ndax ilimaan jéng na ko ba ilimaan sëlmal bu fekkente nag xam nga takbiratul ihraam moom bu amul armale goo duggagoo si julli wala yéene woo ko duggagoo si julli ku ak si fekk ilimaan nekk si ñaareelu rakka looy def kabar yow mu ngi mel ne kuloo fi woon kuloo fi woon kon nag kàmbaraat da ngay kabar kabar kon wax nga yooyu yëpp naan naan boo ko julli waaw da ngay kàmbar ànd ak sa yéene mu ngi aji nag ci loolu di bokk ci lay lay waaw mu ngi aji nag ci nga jógaat nga jógaat ba taxaw
jégg na la dee ba pare waaw jël na la non
yàgg laa ko def xam nga ci ci ci njàpp yàgg bi mooy kenn téye
waaw fi imaani nu mu waxtandi ak wa insaan mu waxtandi na fekk jamono bi nekkul bu tàng trop nekkul bu sedd trop nit ki nekkul bu mag trop nekkul bu xale la trop waaw su fekkee ni toujours ñu naan su yàggee lool wala nga génn jàkk ni waaw.
war nga naa yàgg boobu yàggu julli moo gën a gàtt ndax bu fekkente ne génn nga jàpp ni jàpp nañ ko ne yàgg na bu fekkee ne sos nga beneen naafile jàpp nañ ko ne yàgg na bu fekkee ne itam da ngaa wàññi ko wax jàpp nañ ko ne yàgg na wax wala nga jëf lu dul am na benn masala moo xam ne ci kanam dafa dee mel na rek nga ne asalaamaaleykum rek for benn doomu gerte sax ndax li sasale gi gëlax ni ko bokk noonu ñu ko daan misaale diggante boobu moom jeexagul dafa gaaw dafa gaaw nga boole lekk ak naan waaye bu fekkente ne da ngaa toog wala bët bu ñàkk a jublu kenn ko waxuloo génnuloo jàkk ji féeg mënuñu fi julli ñaari rakka rek yeggul mën nga jox
parce que kii léegi rek am ku ni dafa julli ak wàkk def ñetti ràkk pour mën te kenn sàbbal ba mu taaya ba jóg ba lem li mu toogoon waaw ñu ni ko yow sa julli ma fekk na booba dafa sëlma rek daal di jóg lépp ay leen waaw dafa sël mën taaya waaw taaye ba noppi sëlmal waaw nga taaye ba noppi sëlmal waaw taay na sël mën maanaam daal def ràqee ak sale ràqee ak sale waaw ñaan ñaanam waaw jóg nag léegi ñaan gi nag la mu xamul nag na mu yàggee wala déet mais su waaye fekkoon bu fekkoon dafa def baax def saliyaat rek ba àggale buñ ko ne si julli gi àggul day daal di dugg kan yéene rakka kabar daal di indi rakka bi suñu baax la faw mu kabar ak kabaroo arma dugg si biir julli bi dugg si julli su mat la nag rakka bi su jóg taaya sëlmal su jóg baax def la dama xamul nag ndax ñaan bi yàgg na mu ne am na ñaan yu yem am na ñoo xam ne ñaan yu gàtt man man day faral ma laaj ko biir biir bi waaye ñaan na ca
ñaar ñee daal yéen jeex daal ci ci yéen boobu ñu nga def yéen am ba tey maanaam léegi fekk mu la yow nga nga jiite mbooloo waaw
nga julli ba ci digg bi maanaam yaa ngi ci ñaareelu rakk waaye nga yëg ni yow sa yéene tàbbi woon la waaw yéene woo waaw kon euh, ñaari rakk yi ci ñoom dañuy daal di yàqu kon léegi da ngay da ngay Kabar, kabro, ak- bàyyi ko jóg kabar ak kabro waaw foofu nag sopp nañ nga ne asalaamaaleykum dal di xabaar ndax moo la topp ci yow asalaamaaleykum ci taxawaay sax ci bi nga taxawee asalaamaaleykum ñoom ñëpp ñu xam ne génn nga ci julli gi ndax julli ko amul yéene la nga dal di xabaaraat xabaroo am na ak jigéen ndax fee nga toppoon ci gannaaw ilimaan ilimaan jéng la te mënuloo bàyyi julli gi ndax eh, taxaw nga ci place bi ilimaan jaa ngi julli bori woo fàttali ko woo sobe soo xam ne moo yàq sa julli amuloo looy looy raxas wala looy dindi ilimaan kon génn na waaye fekk bërëb bi xaraam nekkul loo xam ne dafa aaju woo génn da ngay daal di fekk bërëb bi xaraam bu fekkee da nga yaa jiite ñi moom da ngay daal di génn mu ñu kon am foofu ba ñu yàlla su fekkee yaa ngi dem mu ngi julli yàqu noonu noonu waaw waaw waaw waaw waaw waaw ci sa julli yàqoo ci sa julli bi yàqu rek mooy suñu waxoon da nga jàpp ne amee nga njàpp gëm nga ne amee nga njàpp nga kabar ñu kabar topp ci yow nga julli benn rakka wala ñaar sa xel dem ci ne ah yow kat demoon nga ci duus bi ci diggante bi sa jàpp loo nga dal di jàpp sama kër génn ñu continuer ndax moom du yàqule waaye boo continué waatee benn rakka rek ñu topp la gannaaw ba nga ko fàttali ko seen julli yàqu nga gàddu ko waaw laata la ñuy daal bu fekkee léegi waa ji fàttaliku woon ba xam ne léegi dañoo julli ba du sëlmal waaw bu sëlmal ba waxtu wi léegi tey moo xam weer wala si waaye waaw du sëlmal rek waaw di ko doog a fàttaliku léegi moom nga naan baamu ñoom daal waaw loolu yëpp ñoom yëpp ci waaye su fekkoon ne dem na ba nga xam ne benn rakka bu dese wala rakka bu mujj ba mu ngi taaya bu yëg ko daal di jóge bu sëlmalee seen bopp ci laaj yoon bi waaye buñ xasee ba matal julli bi ba génn ci rek te fekk bi nga andul woon pour laab matul woon sart julli yow amuloo julli gi topp ci yoon
waaw léegi bu mbooloo Moussa Rowe nag.
wax leen ko ah dinañ ko wax.
dañ ko wax man arrivé na ma benn yoon. ah yow nag maanaam fi mu ne nii ma jiite am borom ba nga xam ne léegi sëlmi naa am diir. wax topp na waaye boobu bi nga xam ne dem naa ba jant bi ba di ko fàtte. te saa woon daal di waaye bu ñu wax sama jàpp léegi di yónni ñu ñëw maa ngi leen kii daanaka julli waat parce que wax dëgg.
waaw fi mu noonu toll nii jiw.
waaw dama ak julli yoon naa ne am na woon jàpp waaw waaw waaw kenn si julli sart la taxaaratu xabas wal xades léegi bu sa jàpp yaa ko war xaar bu xaar sama too ko dina ko te charte la charte nag mooy loo xam ne bu amul loola du am la ñuy charte du am bismillah mu ne moo ba tey farat la tartibu adaa in jokkale ak joox jokkale ak joox ci li nga xam ne da nga ko war a toftale mooy farata yi yéene jiitu pour sa sa dugal ci xalaat ak muy xalaat jiitu jàng fatiha ak saar loolu nga siy mën ni nga koy toftalee ci julli bi maanaam nañ gisee sallallahu alayhi wa sallam di ko jullee di ko jullee farata la ma waa ci daal yi kañ waxoon nañu jumaa ñu ne waa ci daal da ngay ci daal la war a gis bi sëñ bi waaye nag alal la sax yi jëm ci wax dafa am ñoo xam ne ci daal bi defuñu ko farata moo tax ñu ne alal la sax yi ñu ne alal la sax yi waaye wala xër yu gën a bari ci fuqahaa yi ah wala xel li gën a bari ci fuqahaa yi ala nax yi ñii ci dàqam moom dañ koy i'tidaal i'tidaal moo xam yëkkati ko ci rukk wala wala sujjóot waaw ala nax yi maanaam ak waram
nekkul farata.
dañu bëgg wax ne sunna la ñenn ñi dañu wax ne sunna la dañu ne farata la mooy li gën a bari wax yi am na ñu ne sunna la waaw yaa ci daal na mu nekk sunna comment nee na di nekk farata ndax ñoo lëkkoo yaa ci daal moo jiitu comment nee na yaa ci daal moo jiitu comment nee na li ñu xam daal mooy li gën a wér daal alal mashhur mooy daal tumaan la ñoom ñaar ñëpp waaw ñaari farat la ci benn sunna nee na ñi gën a bëri daal ci xaaw yi seet ndax man ak sama ñooñu ñan la tollal sara bi wal aksaru wala indiwu ko ñaa indi indi ah juróomi juróomi bi.
juróom lañ daal ñu naan juróom ci juróom benn bi ñu ne ala sabil xaal ak ñu ne wala xew ala na fi mu jógee wala xew waxu ci dara ñi gën a bari ci ñan moom wala xew boobu waxu ñu ne ñu gën a bari mosul noonu ah léegi ñu mel ne fukki farata ak juróom yi nga xam ne moo nekk ci julli léegi ñu jëm ci sunna yi mu ne mosul noonu ah sunna yi julli suratul saar yi nga xam ne da nga ko jàng ba àll fatiha ci gannaaw fatiha te du laa jaraaf bi ko wasaale ak ñaareel bi gannaaw bi nga jàngee fatiha ba noppi ñu farata saar yi nga ciy topp sunna waxtu yaa amul taxawaay ba ngay taxaw laxaa ba jàng ko nga xam ne kon sa ngi doo taxaw kàbbar jàng faatiha ba noppi toog jàng saar ci jëm wala nga wéeru jàng saar ci jëm wala nga sëgg di ko jàng wa jahrun ak biral biral ci wax boo xam ne dañ ci war a biral aqallu gën jaanee biral nag anis mi amoo ñu dëgg nafsahu boppam wa man yali ak ki dend ak moom wa sirrun maanaam wa jahrun ci bérébu biral wa sirrun ak yalu ci bérébu yalu mooy bi mahallihima ci seen béréb ñoom ñaar ñu yeewu ak biral wa kullu takbiratin ak bépp kabar illa lixraam bu dul kabaru arama bi rek sunna la allahu akbar yooyu wa sami allahu liman hamida ak sami allahu liman hamida waaye li imaam yi ñeel imaam wa fas na ak yooyu wa kullu tashahudin bépp taaya sunna la wal julus gis ak jotaay ba ngay da ngay jékki ba taaye te la woon bu njëkk ba musaay bi ak aji dolliku ala qadri salaam yi surtout sëlma bi gën a saani ci ay jaare ba taaya ni ci rakab mu jibit asalaamaaleykum diir may toogaat soog a wàllu ci ndeyjoor wala ci càmmoñ wala soppi jekkiin ba nga xam ne ku ñëw da nga xam ne nekkatuma di julli bala nga koo def ni nga fi naan tekk diggante boobu mooy ñu ngi dolli ci kaw seen man boo dee soppi sa sa jekkiin nag benn nga dañ nii carrément wala nga dañ nii càmmoñ wala nga def soppi nii rek def nii nga def nii nga xam ne daal ku ñëw daal dana xam ne jullee toog
waaw di nga fa boo ne asalaamaaleykum ba noppi li nga fa naan teg soog a soppi jotaay bi wala nga ñëw def waaw amul li ma dafa jaaxal maanaam léegi xam nga asalaamaaleykum bu xasul am rek léegi moom ngeen koy julli waaw léegi nag mbir soo ci toppaat léegi nan la ñu ko jëlee sunna léegi julli bi noonu dafa topp julli moo di sallallahu alayhi wa sallam
waaw bu ko doon defee est-ce que gis nga loolu mënuñu jàpp ne lu am gannaaw yéen ko julli nga am na ne am na gannaaw yéen ko ci julli la am ci gannaaw julli bi la am daan gis lu mel ne baaxee ak saalihaat ak ak yeneen ñaan yooyu yëpp am na ci yoo xam ne sunna la am ci yoo xam ne yu soxla la ci gannaaw julli bi maanaam dafay lu topp julli ndax gis nga dafay nekk loo xam ne dafa dul ànd ak respect maanaam ihtiram dara boo ne asalaamaaleykum rek daal di jóg wala yooyu dafa dul dafa rafet la am na sax xanaa ci chara ibnu achir ci war a gis boo jullee ba noppi ndax waxoon naa sànq xaw boo fekk na nga ñëw xaw ma nit ki julli ñu ngi déyaale ak suñu borom mu mel ne bu suñu borom doon jëmm ñu mën a wane nga xam ne yaa ngi ci kanamam maanaam respect yaru bi nga war a yaru ci kanamam yëpp bi nga war a yëpp màggam gi ak ni nga ko ragalee ni nga ko fonkee ak ni mu foore ci taxal ba sa cër yi di dal ñëpp ñëpp nga di ko def ci bu yaru boo ne asalaamaaleykum it ci saafi ci saafi war may julli dana ci ci yow mooy tekk jooju nga naan tekk ci yaru soog a wala gis yow da la soog ci maanaam yëg gi ngay yëg ci sa xol mag suñu borom bi ak toroxlu bi nga toroxlu loolu dafa àgg ci boo ne asalaamaaleykum mu ne ne julli bi jeex na itam nga daal di bañ a mel ne rek koo xam ne yëgu woon nga def dañu julli itam daanaka amul woon benn war ma alak yooyu mu ne ñu toll woon ci wasaayiru ala qadri salaat min asaani yi saali ñaareel bi wa ala tumaninati ak ñu tegu ci tumanina ñun daal tumanina ñu gën a fonk tumanina bi tam li cay tegu ci mu taras bi leen mu ma xam nga ni ko borom bi daal waxee yooyu yëpp yooyu daf ci sunna la bokk warat bu muqtadin ba tey waa sunna la ba tey rat bu muqtadin delloo aji roy ala imaam yi ci imaanam mais asalaamaaleykum salaam taxlit bi ba noppi aleykum salaam muy imaam kooku itam ba tey ci sunna la bokk su may saal yi ak sa jàmmoy boobu yi na nekk ma ahadul kenn àll yi ñu àll yi maa ngi woon yéen ahad waaye am na ñoo xam ne ne ñun bu fekkee ñëw tam am ko def sax waaye li gën a suuf mooy bu fekkee ne kenn nga ko booba tey suñu la jëxarul biral bi taslima taxli ci sëlmalu bu yëngu bi nga bañ ne rek man rek lay julli yéen waaw bu dee yow rek it day yow wala kenn ñëw bi nga war a biral biral bi sunna la asalaamaaleykum faqat rek nga xam ne islaamu taxali bi rek wax li ci des moom mën nga koo yore booy ñu sàllama dem sëlmal na ala lay saari ci jàmmoy bi su ma takkaalama topp mu wax am tëpp bu ñàkk bu leen di xam nga génn si julli bi asalaamaaleykum tax nit ñi teewul am na yeneen lawaasim ñu la war ci egg yi ci julli bi ba tey ndax xadra bi nga ñëwaat dañ ne aji julli bi moo nekk ci xadra ndax suñu borom azza wa jalla kenn gis ñu gis ñu ko am moo di teewlu ci xol ñii yëg nañ ko yëpp boo xam ne buñ ko dee teewlu seen benn cër bi ci ñëm ñii yëpp màggam bi yëpp boo xam ne buñ ko dee teewlu dañu yenn xutba yëpp ñii yëpp ko yëpp boo xam ne dañ mel ne ay pusa la ñuy daaj ci seen yaram bi fuñ toll ñii dañ ko yëg jóg boo xam ne day mel ne asamaan si lañ leen di yen ci diisaay waaw sallallahu alayhi wa sallam daan def su su su fukkilee rek su jota bu toogee rek mel ne dafa toog ci kaw yi xel ay xal xal xatara noonu lañ ko daan waxee ndax dafay li tubaab bi wax maanaam daal sa tawu ni muy kii yokkoo ni saa xadra bi day tiis tiis ci nit ki nga xam ne daf mën a yàq kooku mooy ñi gën a jege suñu borom nii sallallahu alayhi wa sallam waxee ne nit ku mu këpp jëm boobu la gën a jege borom noonu nga xam ne noonu lay xadara bi noonu la neexee ci moom ak li mel ci moom bu siggee ba toog day yàqam ci daal di delluwaat mel ne kon di ci xal daal di delluwaat ñu xam ne nooy bi daal yëpp ay jamono la ay jamono ñu mel ne alquran wàccu alquran xam nga ko aaya daawoon wàcc la aay yi njëkk a wàcc aay yu gàtt lañ mooy saak sa bi fix aay yi mujj a wàcc nga xam ne madina la mooy aay yi gën a gudd ay baqaraat Ali Imran Nisa Maida Lanfal Tawba Haj Nuur Lahzab Qitaal Fath Xajiraat Hadid Jidaal ba ba ngay dem ba Tahrim Qadri Alkawn wala mu nekkoon ni Ida Zulzilati Ida Jaa Nasrullah nga xam ne bu fekkente ne aayaa ngi wàcc bis bi gën a sedd day ñàkk ba ñàkk wi di wàcc ndax bii saa yu aaya ji inna sanu taalika xawlan safilan ci njëlbeen bi rek bu ñu demee ba miin ko ba man ba miin ko suuf si toogati balaa ak yëpp mu ngi wàcc moom boobu mu ngi wàcc ci gëléem googu naaw mu ngi wàcc xasuwaa jóge màkk ci madina am ni ko koy daa li saa daana wàcc gëléem bi boo aaya di wàcc gëléem bi doon ko àttan day day yës di def li saa yi ñu ko yëgee moom ñu ko yëgee moom daa xëy daa xëy ñu ne kon sallama alayhi taala suma takalama toog mu wax lam tappul du yàqu julleem de mu nga dafa njëkkee xam nga taslimu taxmil bi ndeyjoor da nga ko war a tayaamur boobu da nga ko wax ci ngëne yi léegi nag gannaaw defu ko defu ko mu daal di salaamaaleykum noonu daal di wax bu tax julli du yàqu asalaamaaleykum lay wax lay jox ci lay jox dégg nga moo xam mu ne wax bi moo ko tey bu bu fekkee ne daf ko wax nga tey ko bu leen dana yàqu ndax génne ko si julli bi ابتدأ بكلام أهل يساره ناويا التحليل حمدا أو سهوا إماما أو مهما أفسدا ثم تكلم فلم صلاته لأنه ترك مندوب التيامن فقد بسلامه كذا إن لم يمل شيئا وهو إمام أفسد أو مأموم ليس على يسار أحد بحمد على نية التحليل غلبته فإنما القبلة مبنى صلاته وأقول لو موي دافاي فاتي كون تسليم تحليل سلام تحليل فاتي نكو ولا لم يعتد به mu daal di mel ne def silmalu ngëneel boobu ba sunna boobu bàyyi waaw waaw su ñàkk jàmm waaye ba tey wa sutul dafa am ñu de su fekkee ni yaa ngi nekk ci gannaaw yi xam nga dafa dafa moom iman la sant rek asalaamaaleykum bañ a bañ a dégg waaw léegi ñi nga xam ne dañuy seete day joor ñëw asalaamaaleykum asalaamaaleykum dañu su ne asalaamaaleykum niveau ba mu ne asalaamaaleykum ci kanam ñu nga sëlmal yow maamun sëlmal day
moom ilimaan bi yow yow ma yow maamun man man bu ilimaan bi moo def asalaamaaleykum ci day joor waaw
ñu waat asalaamaaleykum yow nag su fekkee ni gaawantu nga mu ne asalaamaaleykum yow maam bi yow nga naan ni asalaamaaleykum te te bàyyoo ko ba mu ñëwaat asalaamaaleykum ma seen ndax loolu dafa am
doxul de doxul de
dama ko amale ko su muy yàqoo daal nga jëkk ko ci miimu kum ci asalaamaaleykum bu mu daan wax kum nga ne asalaamaaleykum waaye mu xamul imam moom daanaka wax bi yàqu la ne dana dana sëlmal ci càmmoñ moom ci ndeyjoor rek la def tax nit yow maamum bi yaa war a def ci sa imam ak ci sa càmmoñ xam nga kon da wax rek xol de dégg nga mu ñu wa sutratun waa sunnal ba tey sutratun wala imam mu ngi julli samp bant boo xam ne ñu ngi ko charte guddaayu xeej jëla ko mu ne ne talaayu xeej mu bon bon daal na dijje nii wala mu ëpp ko tuuti ba tuuru diraay na gën a guddi na gudde ne itam xasab xasab ci mu atale insan mu tan ci mu tuuru nit ku yëpp nit doom nit bu ñu wàll borom nit bu gàtt bant boobu moom lay taxawal mu nekk ci kanamam nit bañ a jaar ci digganteem ak bant bi nit dafa bëgg a yemale li nga xam ne ci la julleem yem bërëbu julleem nit ko su jaaree ne nga gannaaw bant ba du ko yàqal dara suñu kooku ba tey ci suñu yi la bokk waaw boobu mu ne lii man am ñu xadra mu sall am ñu la bàtt bokk amul suñu yi ne maanaam di wax xadra mu sall am ñu la ah saako bi de.
waaw saako bi ñëw.
waaw tey nit mën na julli.
waaw.
wala léegi ci saako bi di rajo bi. wala ñaari ko xam ne waaw.
wala léegi ci misaal bi dafay léegi ne moom julli ko woon yàlla dogal na am lenn loo xam ne mën na jàll ko def ko saako.
waaw.
wala léegi am na xadis boo xam ne law alima ma xam musalli ma alim ne la fadla ni afa ma min arba'in sana ma ila arba'in yow. wala léegi man man julli ko man amul saako.
waaw.
bon am na koo xam ne moom mu ngi ñëw ci action bi léegi moom am na xëy na mu war a sàmmante ban sens la moom.
waaw waaw est-ce que loolu maanaam sax la misaal la boobu.
xam nga nit ki bu fekkente ne ñu ngi liggéey bu fekkee ne amul saako yi li ñuy jàppee ne mooy ku fa jaar nga xam ne nee na ku fa jaar jaar nga ci kanamam. ñetti xaam ñetti ñetti taxawaayu nit ki. mel na dafay daal lu paase seen moor mi. bu ci def tuuti. bu ci tegatee lu doon sama diggante maanaam genn wàll sama diggante moom kooku.
ndax man ma lim si jàmm.
waaw kay kat nga après. kat nga. alors dégg nga. ana fu mu tolloon si waaw. bu sukkandiku ak saa di sunal nañ ko imaam yi ñeen imaam wax ko gën ak ak wéet boo xam ne yow kenn lay julli anduloo kenn kañ dañ koy sunal ngeen xasiyaa nem ragal nañu muruuran ak romb ragal nañu ko romb waaye bu ñu ragal nañu ñu jàll wala nekk ak kenn du ko romb rek saa di sunnatu sunna
saako bi lim yoon dafa mën a dox.
bu taxaw waaw taxaw li nekk du luy lu laab te loo xam ne du dem ba ci la fa ñu kii xar wala gëléem wala yooyu doo am nga def ko saatin bu fekk xam ne su ko neexee mu jóg dem te lu luy jax jaxal benn dafa rafet muy bant bu rafet mën na kaan yooyu yooyu itam loolu nga sib nañ ko wala nit ku jigéen bu mag nga def ko saatu la léegi si kon bu doon góor kon ko def dégg nga bu ñu xas yaa ngi ragal ni ñoom ñaar mu roon ak romb day nekk nag saa su bi tahirin ci aji laab saa su bi aji sax bu nga li ma wax mu noonu day nekk lu laab waaye bu dee lu sobee daganu saa su day sax bu dee luy dem yoonam ñu ci jàng wala yooyu ñu ko teexee mu dem yoonam wala nga ragal ko dana la jax-jaxal ba tey xëy muskil loo xam ne moo di soxlaal bu dee jaan dana la soxlaal ndax mën nga mën na la song mën nga
naa tomb dinañ ci bañ. bu fekkee nit ki dafa jaar ci kanam bi ñëw ba dem ci woon taxaw foofu. mu musulman. bañ a yëm bi ba musulman.
su ko du su ko du soxlaal rek soxlaal.
baax na waaye su fekkee ne dafay dellu gannaaw ngir bañ ko soxlaal dafa wax ne dina am ci kanam wa asima maaram ñu ko gën di wax suñu xaw ma dégg nga ko musallin ta araba ñu yaakaar naa ci xale bii la loo xam ne ah ah voilà voilà dégg nga ren suñu waxoon du ma soxlaa ko fii dee la ko mun xëy na ci pour talaayu xëy buntu la wala fi wax watuñu diraay ak guddaayu xasab waaye laa daa bëti jabi ni daaba ñu ci xar mi wala gëléem bi wala yooyu ndax day dem mu xajarin ak doj waa xib bu di wenn dafay gàtt ndax di gudd benn doj rek ñu nga waxatin wala nga rëdd rek ne mu kat jaat bi rëdd yi daal moom lay def sa ngeen nga mu ne wa ajnabiyatin wala jàmm bu jigéen mooy ma doon wax yow ñu ne nag waaye wa fil mahrami ñu si jigéen joo xam ne sa ko armal la ndax mën nga ko def saa fi mu ko mën nga ko def sa aw la am si dégg ngeen wa muqaddima bu asma bakkaarat na maarun aji romb boo xam ne lahu ñeel na ko mën bu xamul ak yaay waay waa ji daal mënoon na jaari fii moom moom sa diggante gi ñu mën na fi jaar ñu ak bañ fi jaar dem jaar te dem na bakkaar wa asma bakkaarat na maarun aji romb lahu kopp ñeel na ko mën bu xamul yaatu yaatu bu mu sali ak ak julli ta arruda boo xam ne gaar gaar na yooyu itam da ngaa seet nga xam ne fii moom fi jaar rek fi julli daal di jaar sa kan fii jaarukaay la dañ ci jaar mu wóor rek ma ne ko ngërëm julli léegi yaa am bakkaar yooyu ba ba tey ñu ngi jëm si nañu mën a insaaf muqtadin cellantu aji roy imam bi du jàng ñu di ko dégg donc ñu jàng alquran rek farata la ñu dégg bu fekkente ne rajo la wala leen nit ñi di soow di waxtaan nañ ko fay ndax lu war la ñu ko jàng وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون suñu borom daf cee aj ngir mu njël kon fu ñuy jàng alquran ngay waj waji day xam ni yërmande yàlla naka moom fu ñuy nodde wala ñuy jàng xadis mu ni walaw sakata donte noppi woon na imaamu ilimaan yi waaw nopp boobu ban façon nopp la loolu fekkate imam bu bay la ak biir waaw bu bay la fàtte seen suuf kon nga xam ne si xam ne sunna la sallallahu alayhi wa sallam ko laajee lan ngay wax boo xabare ba bala ngay jàng ak daan fekk ci diggante اللهم زكي نفسي بكلاماتي فأنت خير من زكاها أنت مولاها اللهم أعد نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها اللهم زكي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها مرحبا واو اللهم نكون ختما يعقد من اللهم نكون من خلاك من اجل درجة وصل جواب جنك وصل منك لما أكون شكرا كثيرا خمسة أنتم ألا أبعد بينهم من خطايا ما أخرج من شأنهم ألا منقل من خطايا ما أقصد بيننا من ألا مخرج من خطايا بما إلى الدرجة وصل جواب muy kon moo tax walaw sakkata donte noppi na imam walaw lu joxoon xilaaf mazhabiyin wonu di ba soppi fat nag yéen jëri ñu jàng
yéen jëri ba jëf boo ci des ñu ne di fatal sama la xali sama la ci ko ko koy balan balan def ko balan def ko ñu ñu wajef ko ci ñu ne fatal sama la xali ko wala ñu dal ñu ñeel ñu nga xam ne sallallahu alayhi wasallam ba soppe fat na ko in asarra mu na muy jàng ñu ngeen sopp rek lañ wax de in asarra ndem yàlla na moom iliman léegi iliman daf lay jiite ci subaar sopp nañ ko jàng rek mu di bët in asarra dégg nga waaw dëkkanaa waaw dégg nga ci bérébu dégg nga mu ne in asara karaf in mu ne la ci karaf in yadda yi ci ñu sopp yi naka noonu yëkkati ñaari loxoom ma ihraam yi ànd ak armaanam xeena shuru yi ci waxtu tabbi ci julli allahu akbar solo nañ ni mu tolloog ñaari mbagg yi solo nañ mu yëkkati ko mu tëdd solo nañ mu topp mu tolloog ñaari saxma ko nii solo